jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen a ñu koy topp ci site internet bi di Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy do rek ressortissant Iblis ak Casa foofa ca diwaan bu Ndakaaru nag daal dinañ annoncé rek ab point de presse ni ki ëllëg ci talaata ji ci génnu àddina ki di DJ Badji ak ki nga xamante ne rek moom mooy Fulbert Sambou mu nekk déclaration bu am solo boo xamante ne rek fas yéene nañu ko def ginnaaw sortie bi nga xamante ne rek la ancien ministre de la justice di Ismaïla Madior Fall daal doon def nag ci géddu àdduna kii di Fulbert Samb ak disparition kii di Didier Badji ñoom ñi ne rek ñoom ñoo fekk baax foofu ca Elblis bu Casa nekk ca diwaan bu Ndakaaru nag annoncé nañ daal ab point de presse boo xamante rek daañu ko amal niki ëllëg yem juróom-ñeenti fan ci weeru sulet ci atum bu 17 jotee fi nga xamante rek moom mooy ci siège Amnesty International ci mbir mu nu nag kii Ismaïla Madior Fall dafa daal di déclaré woon que ne yi nga xamante ne rek ay officiers sénégalais kaaraange di Fulbert Sambou ak DJ Badji seen génnuk àddina nag dañ ko dugal eh, ci loi amnistie bi nga xamante ne rek kii di Macky Sall voté woon na ko laata ñuy amal élection présidentielle yi nga xamante moom nañu génn nit ki fukki fan ak ñeent ci weeru mars ci atum 2024 bi mu nekk loi boo xamante rek dafa daal di ragg jëf yu ñu defoon eh, ca 2021 jàpp 2024 naam sax moom ancien ministre bi ci jëmi boppam rek daal dinay wax ne rek def na ab erreur waaye nag nga xamante rek ñoom ñooy ressortissants yi jébbal ab plainte nag ngir mu indi ay leeral ci déclaration yi nga xamante ne rek euh, daal dina koy yëkkati bu ñu jógee ko foofu nag euh, dañuy addu rek wax ci Diop Sy mi nga xamante ne daal dinañ koy daan mu fay nag lu toll ci ñaari milliards de francs CFA ginnaaw bu mu yàqee rek ay bien yoo xamante ne rek ñeneen ñoo ko moomoon kii di Demba Diop Sy ñu gën koo xam ci turu Diop Sy tribunal bi nag ak li nga xamante ne rek ñoom la àndal daan nañu ci génne nag ne cause bi état bu Sénégal nag waralu ko ndax commune bu kam sax ci la bokk moom nag dañu koy topp moom mi nga xamante ne rek député maire la nekk député maire bu Tivaouane demb Diop Sy ñu gën koo xam ci turu Diop Sy daal dinañu koy daan ngir mu fay lu toll ci million milliard 93 millions 634 mille 155 francs fa kii di Abdou sàmba si ak ñamu àndaloon nekk nag mbir moo xamante ne rek ginnaaw mu ñu gisee ne rek dafa daal di yàqal ay nit loo xamante ne rek ñoom ñoo ko moomoon ci soutenance bu nu mel nag daal dinañ koy prononcé foofa ca tribunal bu Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci le quotidien mi joxe boobu lee xibaax ñi nga xamante ne daal ñoom ñoo sàkk woon yëf yi nag ne nañ daal dañoo daal di gis ne rek la ñu demandé woon nag daal di nay ëpp sax lañ leen jox mbir mu nu mel nag dañ ko daal di évoqué rek ci fonds yi waaye tribunal ci jëmmi boppam rek ginnaaw nag bu mu mettre yëf yi nag hors cause daal di na ciy génnee état bu Sénégal waaye commune bu Sangalkam ci jëmmi boppam rek moom tamit ñu ngi koy topp comme nañuy toppee rek député bi di Diop Sy ñu gën koo xam ci Demba Diop Sy jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mun am yeneen i xibaar